yow beneen aat bu bees la dinga nga layk li ci des lu néew la just benn night àpp guñu ci koon Senego ñaan aat bi di ñëw dàq daaw. yow masawu wees ñëw njukkal at bu bees bi ñaanal ñu ci des rest in ngeen te gees bi le temps presse rakk kaa ñu def lu xees. bi en tant que bés doo jóg di feeñ ci presse bi Sénégal go go dem dem ba at bi yow dàq bu ci daaw bi. <laughs> yow yow sëb big <laughs> à Sénégal gars yi dem leen ngeen abonné wu si page yu Sénégal ñu ngi def liggéey bu rafet ñu ngi avancé loo affaire yi. ñoom seen côté ñu ngi koy avancé loo parce que seen yeneen concurrents ñu ngi leen di bàyyi xel donc liggéey liggéey liggéey. waaw euh, je pense que li Maria wax rek ah ñu ngi remercier ñëpp ah. et at bu bees bi yal nañ si dugg ci bismillah génn ci alhamdulilah rabil alamin yàlla na jàmm yàgg changement am ci lu positif ci lu baax. Sénégal jëm kanam ñëpp nekk ci jàmm. xam nga tasuñ ko forcé lu bu tey maa mën. bari dugu dugu woo. fu ne fu ne la ñuy jaar ak ñoo doy waar xel. naa ñu Sénégal xam ne Sénégal ah, Sénégal moom bëgg naa moom ah, ah Sénégal suñu Sénégal la ah, vraiment àddina àddina moo